man ca wax na si effectivement xam naa pour nit ñi hmm. ñoo peut-être dese saisir son message. ba pare ñun loolu xaw nañ koo tàmm sax. ndax euh, président Ousmane Sonko saa yu waxee. bëri na ñoo xamante dañuy jël si wax ji. yenn termes yu leen neex rek jël termes yooyu xaw ko den génn si contexte am. peut-être xaw nekk di spéculer si loolu. Mhm. alors que peut-être le message li nga ëpp solo si message bi ñoom duñ ko jël duñ ko faral di jël. Mhm. waaye boo dégloo man par exemple bi ma dégloo le président Ousmane Sonko jàpp naa ne. Mhm. am na trois messages yu mu ñu bëgg a lancer am na ñetti mbir yoo xamante ne fa la ñu bëgg la ñu war mi yorin yoreen bu ñëw fàttali na aussi que ne valeurs yi xamante ne aussi moom la jeunesse bi war a am mhm. ba mën a ba mën a participer à la à la euh, mise en œuvre du projet mhm. boo xoolee tamit beneen kii bi appel bi bi mu def mooy patriotisme et citoyenneté mhm. boo xoolee def na à la fin de son discours boo xoolee fa la mujjee woo na si patriotisme ak citoyenneté troisième point bi xamante ne jàpp naan aussi évoqué na mooy la mise en œuvre du projet mooy nan la ñuy mettre en œuvre le projet ak fan la gouvernement yi bëgg jëm. donc ñett yooyu nag boo ko waxee sa jeunesse donc wax nga leen fan lañ jëm ak ñoom lan lañ a jouer. Mhm. surtout na sax ba naan nit ñi pour ñu bi mooy valeur yi xamante la a mhm. boo xoolee ñëw na si jub jubal jubbanti gi ñëw na si. wax na jubbanti gi xamante moom la gouvernement bi nekk di def. Mhm. à travers les audits. à travers rapport yi xamante ne moom la ñu publier euh, ba aussi invité na sax même ñi xamante ne ñooy ministres yi ak ñi xamante ne ñooy ay directeurs que ñoom comportement yi ñu war a am wax na ba ne képp ku ci luubal tasu nga jëm te ay te ñi xamante ne ñoom lañu fal lay waxal ñenn ñi nekk di ay membre Pastef ñenn ñi nekk ñoo xamante ne peut ci coalition lañ bokk mhm. donc mu ay nitam donc ay militants lay njëkk a waxal ne yéen boo leen jubalul yéen ay dem da ngeen donc foofu noonu mu nekk appel boo xamante ne jeunes yi fa nekk ak ñi fa nekk ñëpp ñoo xamante ne ay am nañu ay ndomba tànk. dégg nañ ko également aussi euh, reddition des comptes ñëw na si wax na ne war nañoo def reddition des comptes dalal loolu day dalal xelu ndaw ñi parce que ndaw ñi looloo taxoon ñu topp ko amoon yaakaar ci moom nit ki am yaakaar ci yow nag bu lay déglu danga koy dalal xelam wax ne ko lii taxoon nga may topp yaakaar googu duma ko tas. donc ñëw na ci reddition des comptes pour dalal xelu nit ñi ñëw ni aussi ci le fait que ñu war a leeral yi xamante ne xew na fi diggante 2021 ba 2024 mm-hmm. muy ay bakkeen yoo xamante dañu leen ay boom mm-hmm. te dara amu ci ñu la lu dul dañoo jël loi d'amnistie ñu ne effacé nañu li fi xewoon lépp donc yooyu le président Ousmane Sonko ñëw na ci dalal xelu nit ñi kanekat ndaw ñi xamante ne xëy na gaañ nañ leen wala kat fàtt nañ leen ah mbirikat du du neen am nañ yaakaar ne justice dina def liggéeyam donc te principalement ñi ñu ñi ñu faat boo xoolee ay ndaw lañu donc day baax nga dalal xelu ndaw ñi ci loolu noonu donc loolu day ñëw ci jubbante gi ak jub ak jubal gi donc invité nañu si. ñu mhm. jub di jubal. ndax noonu lañ mën a yore réew mi waaye aussi dalal na suñu xel si le fait que ñu war a jubbanti li xamante ne moo fi nekkoon te ñëwul. boo xoolee ci beneen pàcc bi mooy citoyenneté bi mu invité ndaw ñi ak patriotisme. fàttali na taxawaay bi xamante ne moom la Pastef ndaw yi Pastef mas a am ci ay vacances agricoles patriotiques. ci ay dons de sang ci ay désherbage nettoyage ci yeneen ak yeneen yu am solo euh, yoo xamante ne ndaw ñi dañ ko daan am ay vacances mu fàttali leen ko ne kat comme ñu ngi si doon nekk di ko def te amuñu woon ay moyen bi ñu amee ay moyen nag yor moyenu la état nag kon yéen ñëw leen soobu ci liggéey bi ñu ànd defaat loolu. parce am na loo ne engagement citoyen moo la ko mën a may. Mm-hmm. foo waroon def tey tey jii ñaar dërëm tey jii say jeune bu ñu amee pas-pas taxaw nekk si terrain bi mën nga faa def dërëm. Mm-hmm. mooy boo xoolee gis nañu le curage des caniveaux yi passé nii nettoyage bi am na ñoom dañu Euh, ndox mi mën a euh, jaar ni mu war a jaaree donc xam nga yooyu noonu nekk na loo xamante ne tey jii boo doon woo benn entreprise mu la koy defal da koy fay ay millions gis nañ l' exemple de Ziguinchor président Ousmane Sonko nee woon na bu mu nekkee bu muy soog a nekk maire Ziguinchor dañu daan voté budget 70 millions pour curer les caniveaux. Mm-hmm. mais moom bi mu ñëwee dafa jël euh, dafa mobiliser la jeunesse ñu def ko. donc foofu sax est-ce que sakkanuloo soixante-dix millions donc je pense bien que réew moo xamante ne amul yenn moyens yi mën nañoo def noonu ba fexe ba jeune bi jeune yi invité na ci engagement citoyen ñuy mën a doxal mbir yu bëri yoo xamante ne xëy na moyens yi ko war a doxal neewuñu fii woo nañu ci des vacances citoyennes woo na woo nañu ci ay vacances agricoles patriotiques si loolu sa am na ndaw ñoo xamante ne anticipé woon nañu ba commencé wut ay tool pour préparer bay. Mm-hmm. woo nañu si service euh, national woo nañu aussi si volontariat ba ne ndaw ñi dañu inscrire pour que. Euh, ci vacances citoyennes yi ñuy def ndaw ñi mën a ñëw def liggéey yi xamante moom la ñuy ndaw ñi à hmm. travers service civique à travers volontariat donc mu nekk ay points yu essentiels yoo xamante ne naka ndaw ñi te ndaw ñi fa nekk dégg nañ ko xëy na nag ku nekk ci forme bi tànn ko nag nekk di euh, di loolu peut-être yow la concerné mais ñun je pense qu'on a bien saisi du message hmm. du président Ousmane Sonko le le discours d'Ousmane Sonko peut-être ak temps bu mu waxee ak mu waxee nit ñi peut-être que c'est ce qui a poussé les gens à ce que yow li nga waxee nii ñun ñu man ma toog déglu la nii ba comprendre lépp lépp lépp peut-être keneen ki nga xam ne day déglu message boobu pour mu tën pour mu pour mu jàpp ko dina métti. waaw foofu xam nga boo seetloo moom dafa profité peut-être xam nga c'est une occasion. le président le, le président du parti il est le premier ministre. Mhm. donc xëy na occasion yi mu doon am c' dans le cadre de l' de ses fonctions. de, de premier ministre. donc doon ko mën may muy apporter peut être yenn réponse politique yi. Mhm. mais bu ñëwee war a jàkkaarloo ndoom ci conférence. c' une occasion aussi c' un président de parti il faut que les gens. chasse faire la part des choses c' un président de parti bu doon jàkkaarloo